bon ci li ñuy tënk moom moo di que euh, lu mot lu ëpp juróomi euh, fukki waxtu euh, ñu ngi fi léegi avocat yi ñëpp joxe nañu seeni lay mu desoon nag ki nga xam ne moom lañu nekk moom moo fi toogal société bi mu di maanaam procureur général cour de cassation ki mu yebal ba mu dikkee dafa nekk ñaan bi ñu kii bi ñu ñaan nekk ñu jël mbir mi jébbal ko conseil constitutionnel ba xam lan lay wax ci kaw ponk bi ñu jël teg tuuma Ousmane Sonko ndax tuuma boobu euh, maanaam dafa méngoowul ak charte bi gën a kawee ci réew mi mu di constitution méngoowul ak charte yi nga xam ne que dafay euh, sàmm àq ak yelleefu doomu aadama euh, léegi nag yoon dafa nekk loolu bu fekkee ne yëkkati nga ko ci kanamu cour suprême wala cour d'appel ñoom waratuñu am sañ maanaam wéyal wax ci waruñu cee wax dañu war a xool ndax li tax ñu ñëw ci ñoom ñoom nan la tuddati yoon jox na leen sañ-sañ que ñu mën koo atte ñaareel bi ak li yoon wax noonu lañu war a def pour agsi si ñoom su fekkee ne loolu jaar na yoon et que amul benn riq rëq bu fekkee loolu yëpp gox gis saytu nañ ko ba pare fa la ñu war a yem dañu war a jël mbir mi jébbal ko léegi nag bu ñu attee bu ñu nekk bu ñu joxee dëgg bu boobaa wax ji kenn du mën a teg tuuma boobu nit ki duñ ko mën a tegati it bépp nit euh, boo xam ne que maanaam war nañ ko mën a topp maanaam dañuy faase mbir moomu euh, ci yoon euh, bu fekkee nag toppuñu mbir mi dafay dellusiwaat siwaat mu mën a atte mbir mi dégg nga ca nañ ko ko jagle jaglee euh, ñaareel bi moom moo di que dañu nekk Ousmane Sonko liñ ko toppee lépp ay tappale la liñ ko toppee it àq ak yelleefam dañ ko jalgati ci anam yoo xam ne que yoon yi ñu tëral ci senegal ci justice loolu euh, da ko tere te it warul am ci réew moo xam ne que dafa nekk réewum droit la euh, léegi nag ci kaw loolu ba nga xamee ne que avocat yi pare nañu ka toogal kii dafa nekk moom de ci xam-xamam la mu jàpp moom moo di ko cour suprême warul jël mbir mi du ko yóbbu conseil constitutionnel li tax mu joxe ay layam ci lay yi it dafa nekk ba nga xamee ne dañoo jóobal wax jooju dafa fekk ne que dossier bi ñoom toggoon nañ ko ba daanaka yekk moo des kon boog dañ koo yéex a indi buñ ko teeloon indi bu boobaa cour suprême du def lu dul li yoon wax wante daanaka yekk rek desoon kon foofu maanaam euh, nan la tuddati moom yaakaar na ne wax ji kon warul mën a dem ndax fekk na sóor nañu def nañu lépp lu war ñaareel bi nag mu ne kon cour suprême dafa war a wéy ci atte mbir mi jeexal ko atte bi nag te mu doon sañ-sañam mu ne benn euh, la nga xam ne que nan la tuddati jébbal nañ ko cour suprême lépp loo xam ne yoon teg na ko pour que avocat Ousmane Sonko yi def ko ba mbir mi mun a doon ndugub bu set mu mën a ñu mën a togg togg bu tar ba pare it yekk daxin bu neex avocat yi def nañ ko kon boog mbir mi cour suprême amul foofu la muy wax te cour suprême it am na sañ-sañ bi léegi nag ci biir li nga xam ne que moom la ñuy joytu euh, moom lañu moo tax ñu ñëw ci kanamam mu ne foofu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo atte mooy attekat yi la ñu atte du yoon du yoon te it yoon joxuleen sañ-sañu ñu war ko mën a jalgati noonu nee na ka ci moom xam-xamam ak la ko xelam jox ak la mu gis moom moo di benn dañu nekk Ousmane Sonko bu fekkee ne que maanaam fayul amande yiñ ko teg du ak li nga xam ne que moom la ñu ne na ko jox mambay kan mu di deux cent mille deux cent millions yi foofu yoon dafa nekk dañ ko war a mën a jàpp ñaari atu kaso yoo xam ne du génn te fayuñu ko mu ne loolu attekat yi foofu lañu def du dëgg du yoon parce que yoon joxu leen boobu sañ-sañ yoon dafa dekk dafa dàq ci mbir yi nga xam ne que ay mbiru tuuma la dégg nga ak mbir yoo xam ne que maanaam ci sañ-sañu journaliste yi la kooku yoon dafa nekk ñu fa jàpp kenn bu fekkee ne que dañu la teg amende wala dañ la teg pour que dañ la teg ndàmpaay kon boog bu fekkee ne ñoom lañ ca yokk ñoo ko yokkal seen bopp wante du yoon moom moo leen ko permettre et que yoon sax dafa bind ne tere ne loolu waruñu koo def kon boog maa tey boobu war na tax atte bi ñu war ko niilal ñu war ko yàq mu ne ñaareel bi it gis na ne que attekat yi it jalgati waat nañu yoon jalgati boo xam ne dafa jéggi tuuma jalgati bi mu di que Sonko dafa li mu wax dafa leer moom moo di que euh, nan la tuddati euh, bu fekkee ne que Mame Mbaye Niang nee na que rapport bi amul dégg nga waxul dégg mu ne loolu ci yoon bi ñuy doxe xam-xam bi dafa leer moom moo di nit ki li mu wax loolu ngay jël xool yoon naka la koy toppee ndax lépp lu nit wax ak lépp lu nit def kooku yoon daf ci teg ponk te ponk boobu mënoo jël beneen ponk nga jaawale ko wëlbati ko ñu ne kon boog bu juge yi taxawee maanaam euh, ubbi seeni bët euh, firi seeni moustache ba pare nekk Ousmane ko dafa nekk mam mam mbay kan ñaa fenkat nga loolu nekkul waxul loolu kon boog ñoom ñoom ñoo jël la Ousmane wax ñoom ñu ñu ñu waxee ko ñoom nañ ko bëggee te loolu yoon da koo dàq kon boog loolu wane na ne que euh, atte bi wërul ate bi setul ate bi du ñagasul rek dafa di alte atte bu tilim boo xam ne que dañ koo war a faase dañ koo war a maanaam euh, dañ koo war a toj tojati ko maanaam saayal ko Euh, ñetteel bi mu ne yit li mu gis euh, maanaam ci dossier bi dañu nekk nit ki mënuñu la topp nekk da nga gaañ nit ñu dem ba ci biir nga war a taxaw ñu lay atte ñu ne ñu ne ah dañ la fi indi pour nga gaañ nit wante ñun liñ lay atte ñun tey tey tey tey tey bii ga taxaw ab càcc lañ lay toppee yoon dafa dàq loolu nit ka la koy toppee ba nga xam ne loolu la préparé war a ñëw tontu ci amut yoon joxul magistrat mu am sañ-sañ toppee ko leneen lu dul li tax mu ñëw te fii dañoo gis ne que Mame Mbaye dafa porter plainte ne moom maanaam ab Samba Boy la ni si Ciré door boo xam ne que maanaam euh, euh, tuumaal nañ ko tuuma yoo xam ne dafa yàq deram ci loolu la wéyee ñaareel bi procureur it ba mu ne Ousmane Sonko kaay wuyu si ñu atte la dafa ne kaay wuyu si parce que mambay kat nee na moom xam ne nit bu ñàkk solo la day nga dal nga ci kawam yàq nga deram toroxal nga ko tilimal nga ko mu ne kon boog loolu yoon dafa nekk ci loolu la Ousmane war a tontu ek que mënuñu ci dugal leneen ba ñu dikkee nag ñoom ci seen sañ-sañ ñu jël mbir mi Euh, wëlbati ko ne Ousmane waa Mame Mbaye de nee na moom nit ku ñàkk solo la wante pour ñun borom solo la. ndax ministre la woon ndax la nga koy tuumaal boobu ministre la woon kon dañ lay atte comme bu dee ab ministre moom nga ñàkkal solo ba pare daan ko ci kaw loolu kon gis ngeen wëlbati bi mu ne loolu yoon nanguwu ko te it ci xam-xam loolu sañ-sañ boobu dañ koo dàq kon wane nañ ne que atte bi. jaarul yoon et euh, que dafa di atte boo xam ne que euh, maanaam dañu war a dañ ko war a saayal niilalu ko te it ñu xam ne que loolu bu fekkee ne que am na moom moo di que euh, dañuy naan que kan moomu fii gàgganti ne nañ ko xaw ma lépp tàbbe na géej tàbbe géej fa lay mujje léegi nag ñu ngi xaar juge yi dem nañu ah ñu ngi xool ci seen biir ba xam ndax dañuy jël mbir mi jébbal ko conseil constitutionnel wala ndax la nga xam ne que moom la euh, avocat général bi wax mooy ki fi taxawal maanaam société bi nekk nañ ko atte mu jeex dégg nga lan lañ ci def buñ ko attee mu jeexit est-ce que ñun la ñu wax ak la avocat général bi wax nga xam ne dafa méngoo parce que ñun yooyu ni ko waxee noonu lañ ko waxee noonu lañ ko bindee est-ce que ñu topp walla ndax ñoom it dañuy dañuy génne beneen kaamil bu nuroog kaamil bi ñu jàng jërëjëf.